wala ngay taaxuraan wala loo mën a def mu jëm ci wàllu mbay ak musical rek ak way kese kese kese kii mooy sa baay ku mu mën a doon nag sa papa ngi nii moo leen dàqa way ëpp leen dignité ëpp leen fulla dàqu leen a liggéey bari yërmande ci nit ñi dàq leen a li nga xamante ni yàlla da koo jagleel mu dàq leen koo joxe koo koy Wally Ballago Seck amul concurrence biir Sénégal amul concurrence musique sénégalais da koo téye poñe ko ci loxoom partout dans le monde la yóbbu musique sénégalais ba ku ne di wax musique sénégalais musique sénégalais buñ ko dee wax yàlla ak Wally Ballago moom moo tax Wally Ballago Seck amul morom Sénégal dama bëgg mu leer concurrence sunte kenn concurrence ñu tolloo ñoo koy def moom tolloowul ak kenn bay concurrence ante kenn te du moroomu kenn waaye wàllu li nga way Adamo sama rakk jee Adamo woon la loolu mi ngi toj réew mi friends waaye dama la commencé ne la Zal Pirki ngi ni taxaw lan nga yuuxu Zal kii kii ngeen di tëkkale kii du moroomu kenn kuy téye micro rek sa bàyyi ngi nii il faut ngeen respecter ko jox ko cër wasalaam